juróomi weer ci ginnaaw peuple sénégalais yenn nañu yan woon yan ñeneen mooy président Bassirou Diomaye fay booy yanu nag baax na nga xam lin lay yan lan la looloo tax projet bi ci boppam li ko tax a jóg mooy jub jubal jubbanti kon nag bu dee loolee la tax a jóg buñ lay yan dara da nga xool ndax lan lay yan ànd naag la nga foogoon ci lan la fa bàyyil looloo tax président de la république joxe dogal ministre des finances ne ko yónnil inspection générale des finance mu xoolal ma juróomi at yu weesu yi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 ba bor yi yettu yegg fi nga xam ne ni waru foo woon a yeesu weesu li jëm ci croissance bi mooy koom-koom gi daanaka tëm lañ cay wax rek mooy ne gis nañ ne PSE bu doon jëmbëtoon nan garab goo jëmbat fukki at war ngaa mën a commencé xanaa witt ci dara garab goo jëmbat fukki at war nga li am ba am mooy ne tëli yaa ngi feeg leneen ak leneen waaye yokkul koom-koomu réew mi yokkul koom-koomu réew mi mooy nit ñi yëguñu ko ci seen poos réew mi yëgu ko ci li nga xam ne ne waroon na fa mën a egg te PSE bi koy tëral dañ ne woon ñaari mbir la juróomi at yu njëkk yi gouvernement day dem lebi naam leb bu baax pour mën a defar réew mi juróomi at yi ci des nag gouvernement bi fexe bàyyi secteur privé mooy suñu homme d'affaires yi ñu fii comme yu bitim réew ñu ñoom ñoom liggéey yëf yi waaye li ñu gis mooy ne daanakaam loolu tali yaa ngi fi rafet na lool hôpitaux yaa ngi fi ak kii waaye croissance moom amul ñu jural loo xam ne ne jar naa tudd et fan lan jëm lan lan war a def ba lii mu bara nekk rek li lii moo xew du régler dara lii régler nag mooy fan lan war a jëm pour que lu mel nii du amati waaye ñaareel ba tëm li tarxiis ba sori ñu delloo siwaat ko li muy commencé mooy lépp luy projet programme danañ ko xoolaat ba jël yi nga xam ne ne am na njariñ pour réew mi waaye amul njariñu keneen li ci tegu dépense de fonctionnement yi mooy ni nguur gi di dunde danañ ko saytu danañ ko yaxanal danañ fexe ba marché yi mu nekk lu leer danan fexe ba jënd bi gouvernement bi di jënd ci loo xam ne ni mi ngi jëm ci ay service ñu fexe rek ba mu nekk loo xam ne ni dana aw yoon waaye surtout li jëm ci subvention bi kenn wump lu ne Sénégal li muy jaayee courant di ko jaaye essence ak gasoil gouvernement maa ngi ci teg alal ju bëree bëree bëree bëree bëri 2022 2023 bu nu xoolee junni ak ñaari téeméeri milliards mille deux cent milliards gouvernement bi génnee na ko pour bañ a yokk njëg yi waaye loolu li nga xam ne ne danañ ko ci jojjanti mooy fexe bu ñuy def ay subvention ñu bañ koo jox entreprise bu ko soxlawul bañ koo joxub ministre ndax ñooñu war nan mën a fayal seen bopp bañ koo jox sax entreprise yoo xam ne ni seen fii lan ne bu demee seen dividende dañ koy yóbbu waaye subvention yi metti na lool li ci tegu mooy fexe ñëw ji doole yi ñu gën leen a aar ci jàppale leen ci seen situation loolu itam mbir la moo xam ne danañ ci jëm lu fekkee ne mbiru nag wuti li ñuy wax alal premier ministre da koy faral di wax daa jàpp ne ndimbal na fekk loxol boroom bala ngaa woo nit ne ko lebal ma nanga fexe yow li nga xam ne ne war nga ko def nga def ko ko bare mooy ne danañ fexe ba ku daawul fay lempo fay lempo danañ fexe ba sénégalais yi mën a jóg dem fay seen lempo te kenn du leen ko laaj te lim laaj rek mooy ne leadership la mooy wan ne ne la ngeen di fay fii laa ko def am nañ yaakaar ne buñ ko defee civisme fiscal dana ñëw ci sénégalais yi loolu daal moo doon fi nu fekk réew mi ndax day mbir moo xam ne ni leeral ko askan wi baax na ndax aw doxin bu soox bu ci soox amee jàngoorante am daanaka am mel na ne dëkk bu nekkee ci sa tànk il faut booy dox danga soox ñun nag loolu la ñu fekk fii waxuma benn dëkk waaye ay déggi déggi dégg dig mu ñoo nekk ci suñuy tànk ñu war ko sekki d'abord faj ko bala ñoo dem léegi jéem a dox yóbbu réew mi fi ko président de la république bëgg yóbbu ci ànd ceeg premier ministre premier ministre lii daal moo doon fi nu fekk réew mi ma delloo la kàddu gi. monsieur le kon mbokk yi euh, lii mooy li ñu ne